toog depuis sànq ba tey. am bi waaw. am na nga def. Adja maa ngi lay béggee. Ah, noo gisee tànnibéer bi tey ak euh, plateau bi ñuy def tey spécial sargal jigéen. lii bu doon café kenn du kon naan ndax weex day ëpp doos dodo doos lay doon <laughs> barki ñoom yonent bi. xam nga jigéen chaque jour dañ leen war di sargal. Mhm. yéenay lépp. Mhm. barki ñoom yonent bi. Mhm. yéen da ngay mérito lii kontaan naa trop fekk si leen fii. bisu jagana père salaam fekk si la Adja Diallo. Mhm. kontaan euh, dafa mel ni dafa am foo war a dem moom nga wax léegi ni effectivement waaw est-ce la bàyyi nga yéeg fële. Mhm. defal ñu dara. Eh, ma ne tàggatax daal pi tax di wër xetax mu yéen ah ah ah. clap your hand son excellence is coming everybody everybody son excellence is coming. biisu ngoone xoolal selbe laa ci biir géen bi jox leen ma seen lengee ma dikk kasak leen taasukat yi ci réew mi ñëw di taasal géew bi ñëw ñu laay fëxës ba mu set ñëw dikk taasul leen sonne salas is coming maa ngi lay nuyu tàgga tax mën a pitax di wër ka tax eh toggal ci xool yi neex neex neex neex maay toqal ci xol yi neex neex lii day neex. yaay toqal ci xol yi neex neex neex neex yaay toqal ci xol yi neex. bilaay maay toqal ci xol yi neex neex ana ngeen woy sama nday ay. Eh. ku ma tàccu tàccu di wér ku ma sar xolle doo dee biisu dinaa la waxal yi ñaar bu ko diggatee man mi maa la ko waxal àdduna boo fi nekkee dundal xapil bégel tey def lu defu yaa ngi def lu defu di wax waxu yaa ngi waxu gis nga boo koy dundee defal never give bul toppatoo bul faale bul na leen xolal maay toqal ci xol yi neex neex neex neex maa toqal ci xol yi neex neex lii day neex xoolal rangu neex neex yaay toqal ci xool yi neex neex daa war a Adja Diallo Adja dangaa taaru moo tax dama aalu liitari ci laa naan kaasi sàngara gin càkk gin jërërë gin gin càkk way dama ne ee eh, dajee di nelaw Adja Juma sa baax yàgg na li nga def ci digg réew mi kenn du ko dindi Arabie Saoudite ku fa sàcc ñu dagg sa loxo maay toqal ci xol yi neex neex Adja Diallo ci xol yi neex neex lii day neex jógal mu yël lii day biisu jege naa maa ngi lay nuyu jege gaar dafa taxut a bëri kon borom gaar bi bëri gan ku wàcc xam nga fa nga jëm bés bee ma andi dinaa la waxal yii ñaar bu ko déggatee man mi maa la ko waxal am nga jom am nga ngor bëri fayda kenn yabagu la yaay toqal ci xol yi neex neex ci xol yi neex neex neex neex yaay toqal ci xol yi neex neex ah neex oui yaay toqal ci xol yi neex neex daa war xam lu ma la naweem jagana askan gi nga bokk kenn gënu la ci dinaa la wuyal ba mu neex ma ma def ko soleil journaliste yi liir ko ba mu neex ko ñu def ko débat am nga cas am cacas cacacas am nga ay cacas way way sama way wuyaayo way way bii su jagana andil bilaay yaay toqal ci xol yi neex neex neex neex yaay toqal ci xol yi neex neex neex neex teg leen arme yi ma wax waa arme bi Père Salam kaay fi nga taxaw mu yee eh, di nelaw Père Salam sama baay maa ngi lay nuyu tey ma wax la li ma fekke say at li ci ma fekke foo waale da ngay daan teral nga buur baadoola teral nga say maas père nga ma ci sama naw la kenn demul ba ma loo ma deseel xanaa visa passeport ak laissez-passer argent de poche waaw mu yéen da nelaw <laughs> waaye du ngeen tàccu lii per salaam per salaam jàllo dama ne tàgga tax bi di wër dama ne di tax ak di tax du nu noon man bali yàlla tax li tax ba tax moo tax laay doo leetar bu ndaw xëju la ci bas kenn du doo leetar bu ndaw bilaay yaay cu cuub gii du la këf xel ca ngoon baax na daal sama mbokk dama ne Bijou Dagana sargal jigéen daf ñoo war ndax foo daan fekk góor mu toog boo demee fekk fa jigéen ñaa nga toog ñu ngi ci biro yi machine yaa ngi bind di tàppe xel yaa ngi promenade góor baax na jigéen baax na waaye Adja Diallo laa diva pël bi ñaaniwul sow ñaaniwul meew lépp nga kër baayam jeetaan sa sat si et puis kontaan naa Bijou la Serigne Touba may sa maam kum may sa maam nga ndamu armée lu cante sa maam la càdd sa maam lañ ko mayoon mu ne du jaay damay jël def ko armeel ku yàlla jël ñu andi ko fi loolu sëriñ Serigne Touba may sa maam këjëta binis euh, yóbbu ko yóbbu ko am nday dem am nday dem galañ waay galañ waay galañ waay Fatou Waré ñëw na Fatou Waré Fatou Waré ñëw na Fatou Waré Fatou Waré ñëw na Fatou Waré